أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ba tey ñu ngi ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya 110 111 112 113 ñeenti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy taqrir mabda'u tawba tajubbu ma qablaha wa man taaba taaba allahu alayhi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci ñeenti aay yi nekk sunu kanam saxal gi nga xam ne saxal na ko principe bu tuub di nu xamal ne tuub képp ku ko def yàlla dana la jéggal li nga paase ne wa man taaba taaba allahu alayhi képp ku tuub yàlla nangu sa tuub kon dar su tey liñ ciy njëkk a jàng mooy saxal gi sunu boroom subhanahu wa taala saxal ak tuub ndax léeg-léeg doomu aadama tàbbi ci bàkkaar daal di tarxiis tooñ boroomam waaye comme sunu boroom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu moom buur bu baax la bu yéwén mu ubbil doomu aadama ay bunt ay fenêtre pour doomu aadama daal di delluwaat tuub ay bàkkaaram delluwaat ci boroomam tabaraka wa taala comme ni ngeen gisee xew-xew bi nga xam ne moo xewoon ci tuuma ak ay mbokkam sàcc ba pare dem dénkaane ko mbir mi feeñ mu ànd ak ay mbokkam ñu lay ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox leen dëgg gi ndeke ay kàccoor lañ ñoom ñoo tooñ waaye gis nga loolu li muy garaaw garaaw yépp te rawul borom bi tabaraka wa taala ubbil leen ay bunt pour nu tuub ñooñu ak seeni ñaawteef yi ñu def ñaareel bi mbokk yi adamu zamb réyu bàkkaar rëyu bàkkaar kan moo rëy bàkkaar man yakdibu alal buraa képp koo xam ne da ngay tuumaal wala ngay fenloo nit ñu set ñi wa yattahimu al umana bil xiyaana ngay tuumaal ñu set ñi di leen wor yow sa bàkkaar kenn mënu koo nat tax mu ne adamu zamb bàkkaar rëy na trop waaye ban bàkkaar moo gën a rëy mooy nga fekk ku deful dara nga tuumaal nga taxal deram yàq deram comme tey ni mu xewee ci àddina nga xam ne léegi bu leen neexee fi ngoon yàq sa der bindu ko ci journaux yi après dañ naan baal ñu rek wala ñu ne dañoo foogoon jeex na te wax bu xasee génn ba jaar ci rajo jaar ci télévision yi ñu bind ko ci journaux yi fa wax ja tasaaroo ba yegg fa est-ce que kii ñëwaat naan damay jéggulu wala dama dama dañoo juum est-ce que dana ko dabaatal fekk yow yàq nañ sa der ba pare moo tax li gën a bon ci àdduna mooy tuumaal ab jullit yàq deram moo tax yàlla yonent bi ne bàkkaar bu rëy la bàkkaar gënu koo rëy tuumaal nit rek rek rek sax jaaduwul waxuma la ak nag mu nekk ab jullit kon loolu tamit dinañ ko jàng tey mooy rëy nag bàkkaar képp koo xam ne da ngay tuumaal nit ñu set ñi nga yàq seen der di leen wor na nga yëg ne yaa ngi ci bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy rëy ñetteel mooy taasirul kalaami ala nufus hatta anna rasul sallallahu alayhi wa sallam kaada yudalliluhu banu abriq fa yubri'u lxaa'in wa yudayinu lburaa illa anna allahu asamahu neen dana jàng tey tamit ci jeexitalu wax wax day jeexital day jeexital ci nit nit day ñëw wax ak yow wax ji mu wax ak yow daal di lay dugg pénétrer la daal di jeexital ci yow def taasir loolu dal na sax yonent bi waa ji sàcc na dénk ko yahud yëf yi feeñ mu taxaw ci kanam yonent bi layyi layyi layyi layyi layyi ba ñu taqal yahud bi fekk yahud bi deful dara ba yonent bi alayhi salaatu salaam xaw na bu doon du yàlla moo ñëw ak yërmandeem waa ji ndax làmmiñam bu neex bu rittax bu saf xaw na jàdduloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul du yàllaa ko dimbali illa anna allah asamaw lu dul su ko yàlla dimbali woon dana tarxiis daal di dagg loxo yahud bi daal di dugg ci meru yàlla tabaraka wa taala waaye yàlla mu ànd ak yonentam du ko seetaan du ko bàyyi gaa yi caaxaankat yi di ko sànk ndax yàlla moo ne ko wallahu yaasimuka min annaas dañ jàng tey aqibatu zulm mujjantalu tooñ aidatun ala zalim yàgg yàgg yàgg tooñkat mbir mi day këpp ci kawam rek jàppkatu jaan jaan moo lay mujje sikk nekk ci samedi bii di ñëwaat filmé naa benn waay boo xamante ne ci pont Gambie pour mu jaay garabam mu jar benn yeew la yor dinaa leen ko indil dars bi di ñëw yaram tey daw àddina bi réer bëri na aka bëri nit ñi ñu réeral aka bëri ay doomu aadama yu ñu sànk la ilaha illallah aka bëri ay jullit yu ñuy jàdduloo yoonu yàlla tabaraka wa taala aka bëri ay jullit yu ñu réeral ci façon bu nekk façon xeet wu nekk gaa ñi jàdduloon nañ doomu aadama yi jullit yi pour sànq leen pour ëllëg yowmal xiyaam buñ dajeeg seen borom ñu tàbbi ji safara te ay intérêt rek moo tax ñu jàdduloo doomu aadama yi ay intérêt ay bakkan bànneexi bakkan moo tax duñ wax nit ñi dëgg duñ leen xamal dëgg organiser leen ci ay mbooloo ah tënk leen ci ay yu kenn xamut di leen takkaloo ay gàllaaj yoo xam ne foofu laa gis nit koo xam ne gàllaaj goo bëgg daf koy jaay goo bëgg rek xam nga loolu ay caaxaan la gàllaaj goo bëgg ci àdduna rek am na loolu mënu nekk loolu amul fenn ku mën lépp koo kenn dong la muy yàlla tabaraka wa taala waaw nan leen yàlla gindi tooñkat danañ jàng tey résultat wu tooñ aqibatu zulm fan lay mujj képp koo xam ne da ngaa dëkk tooñ yàlla nattoo la ko soo tuubulee tooñ goo ngay tooñ day këpp sa kaw sikk nekk ci ndax yàllaa ko wax te yàlla lu mu wax mooy dëgg kon mbokk yi bu ñu tënkee ñeenti mbir yooyu mooy ñeenti aaya yu nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala ba tey di leeral mbiru Tu'ma ibnu Abriq ak ay mbokkam ñooñu nga xam ne ñu ngi woon ca Madine di dimbali seen mbokk moomu nga xam ne dafa sàccoon benn mbubu dénk ko ab yahud ba aaya yi ci wàcc samedi biñ mujjee tafsir loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy continuer tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت لهم طائفة منهم أن يدلوك أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سنو برمني جل جلاله wa man yaamal suu'an képp ku def ñaawteef wa man képp koo xam ne yaamal jëf nga suu'an jëf ju ñaaw maa yu siwu ila nafs lépp loo xam ne day ñaawal bakkan di tilimal der aw ilal xayri wala nga def ko ci keneen sa bopp nga ko def wala keneen nga ko def almuhim li nga def lu ñaaw la yemoo ci sax def lu bon waaye aw yazlim nafsa dafa tooñ boppam xam nga léeg-léeg doomu aadama bu defee lu bon dafay jàpp ne nit ñi laa ko def fekk lu bon li nga def ki nga ko njëkk a def mooy kan sa bopp moo tax yàlla mu ne sa bopp nga tooñ aw yazlim nafsa sa bopp nga tooñ balaa résultat bi di dal ci kaw ki nga xam ne moom nga ko def ci sa kaw lay njëkk a këpp ak lu ñaaw loolu lu mu mën a doon xool leen lu ñaaw tey ci biir dëkk bi ku ko def ba buur teg la loxo xoolal li ñuy bind ci yow xoolal lu ñaaw li la nit ñi wax ci biir dëkk bi ak ndomba tànk boo mënoon takk ak daraja boo mënoon am ak kilifteef boo mënoon am moo de yàlla mu ne tooñoo kenn balaa dara di xew sa bopp nga tooñ wa man yaamal su an képp ku def lu ñaaw comme ni ko waajooju defee woon tooñoo kenn tooñ googu nga def bàkkaar boobu nga def yëgal ne ci sa bopp sa kaw lay këpp aw yazlim nafsa wala mu tooñ boppam birtikaabi zamb ci def bàkkaar mina zunub ak bàkkaar bu mu mun a doon li ngay def li muy garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw ak li muy ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw waaye ba nga ko defee ba pare xam nga ne tarxis nga xam nga ne seytaane daaneel na la lan moo ci des summa après yastaghfirillah mu jéggulu yàlla allahu akbar xoolal li nga def ni mu garaawee rek waaye bi nga ko defee ba pare xam nga ne am nga buur boo xam ne soo ko jéggaloo mu jéggal la soo ko baaloo mu balu la soo ko woowee mu wuyu la nga daal di koy jéggalu mu ne yajidillaha gafuran rahima allahu akbar waa jooju def bàkkaar boobu waa jooju tooñ boppam waa jooju tarxiis ba mu ko defee ba pare mu ñaan yàlla jéggalu yàlla mu ne yajidillaha waa jooju dina fekk yàlla gafuran muy jéggale rahiman muy yërëmaate dëgg-dëgg est-ce que bu fekkoon ne dégg nañ aaya bi rong ñu yem ci sunu tafsir tey est-ce que kon doomu aadama war naa génn àdduna yóbbaale bàkkaar mbokk yi est-ce que kon war naa deewaale bàkkaar lan moo tax waroo deewaale bàkkaar ndax yàlla nee na boo tuubee ma baal la ndeysaan yàlla baax na de soo tuubee ma baal la yajidillah gafuran rahima kon ku defati bàkkaar bul bàyyi mu sedd de fi nga defee bàkkaar jógal nga def fa ba tiyaaba defal nga jógal nga def fa lu baax jógal nga jéggulu yàlla waaw tey nag dañuy def ay bàkkaar di ko jéllale au lieu nu tuub loolu mooy suñu problème duñ tuub rëy nañ sax tuub rëy rëy rëy doomu aadama yi iblis da leen jàpp ba danoo rëy sax seen digganteeg seet borom pour tuub waaw xam nga lu tax parce que xamuñu danger bàkkaar ni mu toll xamuñu xamoo ki nga tooñ kan la looloo tax ndeysaan pour nga tuub du xaw a yomb ci yow pour nga tëdd ba guddi nga ni man tey de tooñ naa yàlla te wóor na ma ne tooñ naa ko man ak moom kese la xaaral ma jóg jéggalu ko déedéet ah garaawul god dina ma comprendre quoi bu la ko gars yi di kal rek yàlla dinañu comprendre nga nekk ci loolu yàlla dina ma comprendre ba dee ñëw këf la nga dem alaaxira tuuboo ñu ngi may wax ndeysaan koo xam ne lundi la waroon aji màkk mu faatu tey def na lépp ba pare lundi la war a dem mu dee tey gis ngeen xama la dee dee betti doomu aadama fu mu nekk dafa war di tuub parce que dee dee betti wa man yaamal suu'an képp ku def lu bon def lu ñaaw aw yazlim nafsa wala mu tooñ boppam mooy mu def lu mu warta def def bàkkaar summa yastaghfirillah après mu jéggulu yàlla allahu akbar yajidillaha ghafuran rahiman dana fekk yàlla muy jéggalaakoon yàlla di yërëmaakoon bi sunu borom ne wa man yaksib isman képp ku fàggu bàkkaar fa innama yaksibuhu ala nafsi ne dafa ko kenn de sa bopp nga ko def wala fi nee nañ ku tëdd ci sa kaw lal su mi sa tubee yëkki sa awra di di tuur ndox di dem wanag ci kaw lal bi koy nax koy nax sa bopp ku jaaxaan ci sa kaw lal di tuur ndox ci kaw lal bi ba pare ñu naan la eh nga naan noonu ci wanag bi laa nekk koy nax sa bopp moo tax yàlla ne képp ku def bàkkaar wa man yaksib ithma képp ku def bàkkaar fa innama yaksibuhu ala nafsi sa bopp rek nga ko kereel sa bopp nga indil bàkkaar indiloo ko kenn kenn kenn kenn kenn kenn sa bopp nga ko def gis nga alxuraan daf lay wax ne chaque jour même boo defee sa mbokk sax mu ne sa bopp nga ko def wala tanabazu anfusakum même yàlla bi muy wax yonent dane rasulan min anfusikum ci yéen laa ko jële gis nga chaque jour sa bopp même bu dee nit ñi say mbokk lañ sax yàlla buy wax ak yow danaan la sa bopp rawatina nag nga def mbir mi sa bopp képp koo xam ne fàggu nga bàkkaar bàkkaar bi sëfoo ko ma sàmba sëfoo ko ma demba fa innama yaksibuhu ala nafsi sa bopp nga fàggul bàkkaar boobu dafoo kenn bàkkaar bi yow sa bopp nga ko def parce que bindal nañ la ko yowmal xiyaam mu ngi say say registre ëllëg yàlla subhanahu wa taala dina la ko génneel lii ñëw na borom bi di ñu wax ne képp ku def bàkkaar defaloo ko kenn waaw sa bopp nga ko def booye boo nga bàyyi xel loolu sa bopp nga tooñ sa bopp nga defal bàkkaar zanban minas zunub bàkkaar bi ak nu mu ta mun a toll saxiraha wa kabiraha moo xam dafa ndaw moo xam dafa mag fa innama yaksibuhu ala nafsi sa bopp rek nga ko def is hiya allati bàkkaar bi mooy bàkkaar bi nga xam ne yow lay tilimal du timal du tilimal kenn boroom xam-xam yi dañuy wax ne soo fekkee bool boolu lekk bu ñu teg nga tibb teg sa doq looy yëg tàng na waaye doo yëg ne saf na waaw bàkkaar ku ko def defoo ko kenn te bàkkaar kenn mënu ko yenul kenn wa an laysa lil insaan illa ma saa sa bàkkaar ku ko def sa bopp nga def wa an laysa lil insaan illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura kullu nafsin bima kasabat rahina ku nekk li nga def yow lañ koy tayle kenn munta wàll kenn bàkkaar bàkkaar du wàllaate kenn munta def bàkkaar ba kenn yenul la ko ku def bàkkaar yow doo nga yaa koy yenu moo tax yàlla ne ku def bàkkaar sa bopp nga ko def bàkkaar nag mooy tooñ yàlla mooy nga def loo xam ne yàlla bëggu ko loo xam ne yàlla gërumu ko loolu mooy bàkkaar yàlla boole na la ak malaaka boo xam ne boo defee loolu malaaka bi daf koy bind soo tuubee mu jéggal la ko soo tuubul ñu bind ko loolu nag lañ koy dajale di ko dajale ba yowmal xiyaam ñu peese ko bàkkaar yooyu nga def su ëppee say tiyaaba yu baax yi nga def nga tàbbi safara su fekkee tiyaaba yi ñoo ëpp nga dem aljanna mu ngoog loolu mooy bàkkaar sunu borom ne yëg leen ne wa kaana allahu yàlla masta deñ aliman di xam xakiman di ko xereñ alim xakim ñaari baat yi ñooy ànd chaque jour waaw ku ku am xam-xam da ngay xereñ saa yoo gisee borom xam-xam amul xereñ rek xam-xamam bëriwul amul xam-xam ku am xam-xam da ngay ànd ak xereñ ci ñu demee Casamance dama faa dégg benn laaj ñu ne benn oustaz da doon tafsir benn pël ne ko man de damaa am benn laaj mu ne ko luy sa laaj mu ne ko imagination bi ma lay bëgg a laaj ndax am na aljanna mu ne ko ban imagination la mu ne ko nga toog ba ngoon nga tëdd ci sa piliyaan ci sa biir kër nag yi jóge ci àll bii ñëw mbote nag yu ndaw yi daal di daw dagg buum yi di song seen yaay pour nàmp xale yu góor yi daw di jàpp nag yi poussière bi jóg jant bi di waaj a wàcc imagination bi ndax am na aljanna ustaas bi ne ko amul aljanna mu ne kon man bugguma aljanna kon man bugguma aljanna ustaas bi ko tooñ boo ko waroon wax image bi am na aljanna ah waaye bu ko nee loolu am comme moom loolu moo dee ci xol bi loolu la bëgg da ko waroon wax loolu am na fa lu tax yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran aljanna boo fa duggee loo bëgg am ko am ko ah bima tashahi al anfus wa talazz al ayun kon kay yàlla nee na dinaa la fa indil loo xam ne di nga ci bànneexu ci sa xol waaye say bët sax dina ci bànneexu kon kay am na fa comme moom foofu la toll mu ne ko imagination bi ndax am na aljanna mu ne ko amul aljanna mu ne ko kon man bëgguma aljanna day la war de aliman hakiman alim yaa yam xam-xam gis nga jàngeen xadis waaja ñëwoon rey ñaata nit 99 juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ñëw ci ci kan la ñëw ci aabid wala faqih wala alim ci borom xam-xam la ñëw mu laaj ko waa ji ne ko dool yow yàlla du la baal mu rey ko waaye bi mu demee ci faqih bi mu laaj ko kooku ne ko de boo tubee yàlla dina la baal parce que hakim alim hakim lan mooy alim mooy am xam-xam hakim nag mooy koo xam ne lu mu def rek dañ naan noonu la kenn du ko dindi su ma leen doon jox misaal kan mooy xool bëtam yi fi mu nekk mu ne warul woon nekk fii ci su ma ko yàlla defaloon ci ginnaaw wala bu ma ko yàlla defaloon ci sama jëbi kan mooy xool gémmiñ fi mu nekk mu ne gémmiñ warul woon nekk foofu waay ci jëbi la waroon nekk waay ku wax loolu kan mooy xool loxo fi mu nekk mu ne warul woon nekk fii ci sama dënn bi la waroon nekk loolu mooy hakim mooy koo xam ne lu mu def rek soo ko defee amuloo ci critique loolu mooy hakim yàlla dafa xereñ lu mu def noonu la kan mooy xool asamaan fi mu nekk mu ne waru fa nekk kuy xool suuf fi mu nekk mu ne waru fi nekk xoola géej ni ko yàlla defaree xoola jant bi xoola weer wi xoolal doomu aadama loolu la fa yàlla ñu wa fi anfusikum afala tubsirun même seen bopp loolu mooy hakim mooy ko xereñ koo xam ne lu mu def noonu la xoola baaraam yi est-ce xam ngeen lu tax yàlla dagg ko ah xam ngeen lu tax nit am baaraam baaraam yi dagg nii da xam ngeen ko imagineel bu kole woon doo dank ceeb di nga tibb de mais du dank xam ngeen lu tax mu dank ni baaraam yi dagg moo tax boo koy nii boo koy lem muy danku cam jaa jëfaay ngay tabax ba mu ne kacc dëgër ga doog a seex mais bu daggul woon mel ni turel nga tibb du danku d'accord ngeen allahu akbar xoolal suñ borom moo tax mu dagg baaraam yi ah nga mun a nuyoo xoolal tey su baaraam yi dagguloon ndax di nga nuyoo mën a jàpp ci loxo nit ki déedéet da ngeen di tegoo rek nii rek ngeen def nii waaye la moo tax nga mën a téye loxo mu téye sa loxo ngeen yëngal asalaamaaleykum daal di jaar ci santi parce que dafa dagg noonu ngay xoolee ci tànk yi su baaraam yi dagguloon doo taxaw doo mun a dox normal noonu ngay ñëwee ci óom yi su fekkoon du lemu ndax di nga mën a rukkoo ndax di nga mën a sujjóot ndax di nga mën a toog doo toog su óom yi du loon lemu doo toog ñëwal ci ndigg li ñëwal ci loxo yi ñëwal ci bët yi ñëwal ci bakkan yi ñëwal ci gémmiñ gi ñëwal ci nopp yi cër yëpp ñëwal benn bu ci nekk da ngay xam ne nii yàlla def ko nii la war a mel amoo loo ci mën a wax leneen nii la war a mel nii la war a mel allahu akbar sunu borom kon kooku mooy xakim wa kaana allahu aliman xakima borom bi ne wa man yaksib xatia képp ku fàggu ñaaw téef aw ithman wala mu def bakkaar summa yarmi bihi baria mu dem tuumaal mu sànni ko mu tuumaal bàkkaar bi koo xam ne dafa set wicc deful dara comme ni ko ibriq defe woon tuuma defe woon tuumaal yahud bi xoola ab yahud la tuumaal dal moo la doon diine lislaam dëgg-dëgg mooy diine ji yàlla subhanahu wa taala indi pour mu war a texeel doomu aadama ci kaw suuf pour doomu aadama nekk nit ma defa ne xoolal lu toll ne islaam lu toll ne yàlla ab jullit am problème ak yahud bu doon ñun kan la ñuy faral ñun ñu fii ci jàkka ji ku ñuy faral mbokk yi jullit bi waaye xoolal yàlla yàlla moom xam nga lu ko intéressé dëgg du ay jullit du ay yahud du ay nasaraan yàlla li ko intéressé mooy dëgg ab jullit moo def musibaam tuumaal ab yahud alquran wàcc ànd ak yahud bi kon yàlla lu ko intéressé mooy dëgg képp ku def bàkkaar bàkkaar boobu nga def ak ñaawteef la wala bàkkaar la lu mu ci mën a doon ci ñaari xeet yooyu summa yarmi bihi baria mu dem sànni ko takkal ci koo xam ne yoonam nekku ci moom waajooju def loolu faqad ixtamala buxtaanan wa isman mubina ne yëg ne faqad ixtamala yenu na moom waajooju buxtaanan ñaawteef wa isman bakkaar mubiinan bu bir moom waaji def loolu yenu na bàkkaar boo xam ne def na fen goo xam ne résultat bi fu muy teere kenn xamu ko ci ñaawteef bi mu def moo tax doomu aadama lenn balaa ngay bind balaa ngay wax balaa ngay def xoolal li ngay def léeg-léeg nga accuser benn waay ñu rey ko ba pare nga ne waaw man de dama leen doon nax léeg-léeg nga gis ko ci mbedd mi jékki-jékki rek ñu ne sàccee sàccee rek gaa yi ñëw dóor fekk demewul noonu gaañ waaja wala ñu rey ko wala wala wala léegi après lan mooy xew wala ñu jàpp nit nga accuser ko ñu jàpp ko tëj ko kaso tëj ko nangami at léeg-léeg nga dégg ku ñu tëj ñaar fukki at après ñu génne ko ñu ne non dañoo juum quoi léegi ñaar fukki at yooyu mu tëdd ci kaso bi après ngeen defe ne jeex na déedéet des na tribunal bu mag bi alaysa allahu bi ahkami alxaakimin yowma yaqulu lizalim walmazlum yowma yaqulu lilmazlumi taqaddam bis bu yàlla di wax kiñ tooñoon ñëwal avancé l jegasil yow mi doon tooñ ñëwal ah bis boobu jar naa bàyyi xel de yàlla mooy attekat bi te atte bu ñu atte fi yàlla dina ko attewaat bu mu mun a doon yàlla dina ko attewaat kon doomu aadama na moytandiku fàggu bàkkaar wala mu def ñaawteef mbir mi ëpp ko doole mu yóbbaale ku ci bokkul wala mu takkal ci ku ci bokkul boo xam ne yoonam nekku ci benn waaju wérul dafa nekk ci benn koñ xale góor yi di tox yàmba ñoo toog seen wet police fekk faraatale leen ñoom ñëpp yóbbu waa këram bi mu déggee yóbbu nañ ko police ñu ñëw ne police ñun sunu waaji ju gi am na ku ngeen ci jàppaale de kooku bokk ci wérul commissaire bi ne leen ñëpp laay yóbbu foofu ñi fa ñi fa fekk ñëpp a wér ñu ne leen waa ji wérul ñoom ñu bañ a gëm loolu ñu jàllale leen yóbbu leen 100 mètres jouru jugement bi jot ñu dugal leen ci saal bi rek dox bi daal di gis yaay ji ne ko eh maman yow tamit dañ laa jàpp yow tamit dañ laa jàpp ne ah juge mu ne mais kii lu muy wax mu ne ko sama yaay yi da nga koo jàpp da ngaa jàppaale sama yaay moom tamit juge mu ne ma kii ko fii nii gaa yi daal di biir jox ko këyit mu ne ki génne leen ko ki bokk ci parce que dañoo bañoon déglu bu police yi déglu woon waa ji seen waagal kon duñ duñ ko yóbbu foofu kon nit na moytandiku def loo xamante ne ba nga ko defee ëpp na la loxo tiitaa nga jàpp la wala ja nangam nangam nangam nga dem boole ci ñu ci bokkut waaw doomu aadama mën a moytu loolu képp ku def bakkaar bakkaar bi yow doo nga yaa ko yéen mënoo cee taxal kenn fii ci àdduna nag bu la neexee nga dugal ci ay nit amma àllaaxira yaag yàlla tabaraka wa taala moom mënoo cee dugal kenn parce que gis ngeen waa ji ba mu defee ñaawteefam ay mbokkam taxaw ci kanam yonent bi di ko layyil di ko layyil di ko layyil ba yonent bi nar a jël jaasi dagg loxo yahud bi alxuraan daal di wàcc inna anzalna alayka alkitaba bilhaq mooy aaya bi passé woon dar su bële passé kon képp koo xam ne da ngaa def bakkaar wala nga def ñaaw téef nga teg ko ci kaw doomu aadama boo xam ne ku set wicc la na nga yëg yow moom mu def loolu faqad ihtamala yow de yenu nga buxtaanan ñaaw téef wa ithman ak bàkkaar boo xam ne mu biinan bu bir la bu leer naññ walaw la fadlullahi cëy bu duloon yàlla bàyyi na loolu léegi ñëw na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko fàttali xéewal yi nga xam ne moom yàlla subhanahu wa taala defal na ko yonent bi loolu li ci gën a rëy mooy aar ko ba tappale yeeg triant yi du ñu mën a nar du ñu mën a nax yonent bi alayhi salaatu wasalaam duñ ko mën a dugal ci seen i erreur yooyu ñuy def comme liñ ko bëggoon defloo fii léegi-léegi yàlla ne ko walaw la fadlullahi cëy bu loon du ngënee li yàlla alayka ci yow wa rahmatu ak yërmandeem la hammat yitte woon na bëggoon na taifatun benn mbooloo minhum ci ñoom an yu dillu ka ñu sànk la ñu réeral la waaw waaw waaw incha allah mën na ko indi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala gis ngeen li mu wax yonent bi walaw la fadlullahi alayk allahu akbar bu doon du xéewal yi la yàlla defal aar la protéger la sàmmal la boppam ah ay gisam moom yàlla tegu ci sa kaw su doon du loolu bu la yàlla defalul woon xéewal yooyu la hammat ah walaw la fadlullahi alayk bu doon du xéewal yooyu yàlla defal la wa rahmatu ak yërmandeem la hammat yitte woon na taifatun benn mbooloo mbooloo moom mooy ñan yal na ko yàlla fa yiw téere yi ñoo ko doon laaj démb pour yóbbante ko séeju daara yi nga xam ne ñooñu lañ fa bàyyi mbokk mi yal na ko yàlla fay yal na yàlla barkeel li des barakallahu laka fi ma anfaqta wa fi ma amsakt walaw la fadlullahi bu doon du ngënee li yàlla aleyka ci yow wa rahmatu ak yërmandeem la hammat yitte woon na taifatun mbooloo minhum ci ñoom an yu dilluuka ñu sànk la allahu akbar xawoon nañ laa sànk tuuti ñu réeral la tuuti ñu dugal la ci loo xam ne xamoo ko waaye na nga yëg ne wama yu dillu na kon dunu sànk illaa lu dul anfusahum seen bopp gis nga ñëwaat na ku yaakaar ne yàlla ngay nax naxoo kenn ku yaakaar ne nit ñi ngay nax naxoo kenn sa bopp lépp loo def in ahsantum ahsantum li man li anfusikum gis nga même bu dee lu ñaaw nga def yàlla mu ne sa bopp nga ko def bu dee lu rafet tamit sa bopp nga ko defal kon doomu aadama amul loo fi defal nit ñi lépp loo fi def sa bopp la lépp loo def même lu baax li ngay def lu baax li ngay def pour lan moo tax nga koy def pour nga bokk ci ñu baax ñi pour nga baax moo tax nga koy def kii def lu bon tamit lu bon li muy def fan lay këpp ci kawam parce que ak mbon dong la ko nit ñi di seedeel yenente alayhi salaatu wasalaam toog na ñu gis néew bu ñu yenu gaa yi ne allahu akbar di wax wax ju bon ay kii ay kii yonent bi ne wajabat wajabat wajabat ñaari minute ñu yenuwaat keneen ñii ne ak a baax yonent bi ne wajabat wajabat wajabat gaa yi ne waaw ñaari wajabat nu mu mun a nekke mu ne ku njëkk ki lu ngeen waxoon ñu ne ak a bon mu ne safara ku baax ki ku mujj ki mu ne ngeen ne day ma baax mu ne wajabat aljanna ngo jeex na loolu moo tax ku dee nit bu faatoo yonent bi ne uzkuru mahasina mawtaakum wax leen yu rafet yi waaye leen ki dee bu amul lu rafet nag ah ku dee bi bu amul lu rafet nag noppi bañ a wax ci moom dara waaye nit ñi day ñëw di seede de gis naa fi man bi ma nekkee Casamance dégg nañ fa ku dee fajar gi ñuy xëy di dem Casamance dégg nañ ku dee Sénégal gars yi di ko seedeel waaw ñu naan moom de moom même sabar yi mu doon jàngale sax danaan boo dul julli du la ko jàngal vraiment quelle contradiction Sénégal Sénégal da ngay gis ay paa yu nekk ci place di damyee ñu ne ku saaga fay ñaar fukk te ñu ngi damyee su julli jotee ñu ne ku julliwul fay ñaar fukk téeméer te ñu ngi damyee la ilaha illallah léegi dañuy jëm a nax yàlla quoi non fii gis nga fii ku fi ñëw doo fi saaga su julli jotee da ngay jàpp julli waaw fii islam moo fi ku kuy dem yi kuy dem yi bu mu amee islam loolu nu mu nekkee du ngeen koy gis ci mbedd yi waaw gisoon naa ñoo xam ne ñoom dañuy cotiser bu tamxaari jotee ñu jënd nag rey ko ku nekk yóbbu yàpp sa kër ñu ne gis nga grand place bi am na solo de ah fan la yàlla wax nañ nañ ubbi ay grand place dam yee ci bit ad ci alxuraan fan la ko yàlla wax xanaa xamu leen dam yee daaraam innama alxamr wal maysir wal ansaab wal adlaam rijsun min amali shaytaan loolu la yàlla wax sàngara sobe la dam yi sobe la yoote sobe la yëpp yàlla ma ko wax sobe la yëpp sobe la registre la yàlla wax carte mariage sobe la waaw naka dana li yàlla di waxee mbir sobe la ba pare nga nekk ci sobe bëgg a set fekk yaa ngi ci sobe nga ne da nga laab yooyu mooy nax sa bopp nekk ci ay grand place damier nekk ci liggéey bu araam ci ay salon mees jaay sàngara organiser ah ay foyer yoo xam ne liñ fay jàngal nit ñi mooy fecc Sénégal ngay gis ku foo ba dee gars yi naan aka baaxoon moom taalibe diw la dafa bëggoon diw ba ah dégg naa loolu ci ñu koy wax ñu ne taalibe diw la aka bëggoon diw aka neexoon diw boobu tere ko lu bon li muy def xoolal misaal bu ndaw rek mbër yi mbër yi ñëpp am nañ sëriñ d'accord ngeen ah koo ci jox micro waaw ginnaaw bu ma santee sama papa ak sama yaay waaw maa ngi gërëm sama wasila diw daal di tudd tur bi waaw wasila boobu du ñëw ne la yee li nga nekk daaraam xam nga tax wasila bi di ko def millions yi bu daanee day ñëw jox ko ci wasila bi du ma loolu doo gis fi benn wasila bu ne bu ne nit bàyyi li ngay def lu araam li néew lu néew ci ñoom lu néew lu néew waaw loolu la sëriñ doon jëriñ sëriñ li mu doon jëriñ mooy mu gis taalibe bi nekk ci lu araam mu ne ko bàyyil lu araam lii nga nekk dafa araam génn ci ba set waaye da ngay gis ay taalibe yoo xam ne li ñuy nekk ci lu araam ba dee waa ji ñëw jullee leen ba pare ñu ne àjjana la jëm ah ndeysaan yaakaar ne àjjana moom bi ko yàlla di tabax gars yi dañoo indi woon ciment ak fer jàppale ko moo tax moom yàlla am na contrat am na am na quota bu mu leen génneel quota quota quota aljanna ku nekk am nga sa quota loolu nax sa bopp la mbokk yi ñu leen góorgóorlu jaamu yàlla bàyyi fa bàyyi caaxaan bàyyi fo walawla fadlullahi su fekkul woon du xéewali yàlla tabaraka wa taala ay ngëneelam aleyka ci yow ak yërmandeem wa rahmatu wallahi woon yàlla la aar yow yonent bi la hamma jitte woon na taifatun mbooloo minhum ci ñoom an yu dillu ko ñu sànk la ñoo rek di neexal seeni wax di jooy ba nga jël dëgg gi jox leen fekk ñoom ay caaxaankat lañ waaye na nga yëg ni wa maa yu dillu na sànkuñu illaa lu dul anfusahum seen bopp wa maa yadurruunaka min shay munuñu laa lor dara munuñu laa wàññil dara yow yonentu alayhi salaatu wasalaam gis ngeen yonent bi yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul doomu aadama bu mën a ñëw ba lor yonent amul doomu aadama bu ñëw neexal sa làmmiñ ah jooy wala nga jooyant wala nga yërëmant ba yonent alayhi salaatu wasalaam jël lu dul dëgg daal la koy jox nga defa ne am nga ndam nga defa ne rëcc nga déedéet yàlla dana la feeñal toroxal la ci kanamu nit ñi ba pare yàlla dina aar yonentam alayhi salaatu wasalaam te caaxaan yooyu ak seen kuréel yooyu ak seen mbooloo yooyu wa maa yadurruunaka min shay munuñu laa lor ci dara yow yonent bi wa anzalallahu yàlla wàcce alayka ci yow alkitaaba téere bi waaw muy alquran yàlla ko wàcce ci yow de alquran wal hikma as sunna yàlla wàcce ci yow alquran ak sunna pour nga teg nit ñi ci dëgg moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi bàyyi naa fi ñaar yoo xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen sànk mukk du ngeen réer sama ginnaaw loolu lan la mu ne kitaab allah wa sunnati ak sama sunna wallahi téere yàlla ak sunna yonent bi alayhi salaatu salaam kenn du ci jàpp réer li tax julli di réer tey mooy bàyyi alquran ak sunna loolu kese moo tax julli di réer de wallahi alazim ku jàpp ci alquran ak sunna doo réer waaye ñàkk bi julli di ñàkk bañ a jàpp ci alquran julli di sunna yonent bi ñu sànni boo waxee ñu ne loolu sunna la ah sunna kese la ah sunna dafa am kese téere yàlla bi moom waxuy noppi waaw xoolal jullit boo xam ne téere yàlla bu ñu ko nee lii téere yàlla la mu ne déedéet bu ñu ko nee lii yàllaa ko wax mu bañ di nga gis sax jullit bu dund ba dee atte yàlla yi tabaraka wa taala xamu ci dara tey bu ñu doon wax Sénégal nañ ci nañ ko atte ci alxuraan di nga gis ñu bëri ñu bañ d'accord ngeen wala d'accord leen di nga gis jullit yu bëri yu xëy suba daal ne non xam nga alxuraan moom dafa diis ah te dëkk bi am na ñeneen ñu dul jullit te xam nga alxuraan moom dafa xaw a sévère ndax day dagg loxo ndax ku kii dañ lay rey ah da ngaa nar a sàcc da ngaa nar a rey ay nit ah loolu kese la alxuraan lan moo ci diis santaane yàlla la yàlla wàcc téere bi téere bi lañ war a dund moom lañ war a jàng moom lañ war a gëm moom lañ war a attewoo waaye téere bi lan moo koy leeral mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne ko wa anzala allahu alayka alkitaba walhikma man yàlla maa wàcce ci yow alquran waaye ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wa allamaka man yàlla maa la jàngal maa la xamal maa lam takun taalam loo xamul woon waaw wa allamaka yàlla la jàngal yàlla la xamal keroog ba gaa yi defee seeni plan indi seeni mbooloo ñëw ci sa kanam nga leen di àtte ñu wax wax wax wax ba bëgg laa réeral keroog yàlla moo la indil mbir mi moo ko leeral ba mu neer nañ yàlla mu ne la yahud bi day du sàcc waaye jullit bi mooy sàcc wa allamaka yàlla la xamal maa lam takun taalam loo xamul woon waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko xamal yàlla ko wuññil ay secret jox ko ko leeralal ko lépp yàllaa ko wax yu ci ay xam-xam yàlla moo wàcce ci moom téere bu leer naññ bu nekk njub wa allamahu min al maarif ar rabbaniya yàlla xamal ko ay xam-xam yoo xam ne ci moom la bàyyee ko maa lam yakun yaalam yu mu xamul woon allahu akbar wa kaana musta deñ fadlullahi xéewali yàlla alayka ci yow aziman di màgg sallallahu alayhi wa sallam wa kaana musta deñ fadlullahi ay xéewal yi yàlla sotti ci sa kaw muhammad ay waame ay taw aziman dafa màgg li yàlla defal yonente bi alayhi salaam mbokk yi ndax xam ngeen ko mooy gën mbindeef bi gën ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci nit ñi yàlla jox na ko téere bi gën ci téere yi yàlla jox ko guddi gi gën ci guddi yi yàlla jox ko weer wu gën ci weer yi yàlla jox ko bis bi gën ci bis yi yàlla jox ko dëkk bi gën ci dëkk yi yàlla def ko yonent bi gën ci yonent yi kon lan la ko yàlla desal wa kaana fadlullahi alayka azima allahu akbar te yooyu ngëneel yooyu da koo topp ci àdduna ba ëllëg alaxira mooy njëkk a dékki mooy njëkk a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ramu jaam ñi keroog bu ñu demee ba sonn yàlla wàcce nit ñi jant bi mu tiim nit ñi nit ñi daw dem ci nu mu ne mënuma ci dara dem leen ci ibrahim ibrahima mënu ci dara ñu dem ci Moussa Moussa mënu ci dara ñu dem ci isa munu ci dara ñu ne ko nu ñuy def mu ne dem leen ci muhammad ñu ñëw fekk sang baa ngi toog gaay na ko jaami yàlla yi sonn nan de sonn nan de mu ne lu ngeen bëgg ñu ne nga wax yàlla mu àtte jaam ñi mu ne xaar leen ma ñëw ana laha maa ko yelloo maa ko moom ana laha maa ko yelloo mu ñëw ci keppaaru arsh fa yàlla nekk mu daal di sujjóot yàlla ne ko irfa rasaka wasal tuta wasfa tushaffa yëkkati sa bopp waxal ñu déglu la laajal ñu jox la rammul ñu jox la nga ramm mu ne yàlla damaa bëgg nga àtte jaam ñi nga bàyyi sama xeet ñu dugg aljanna allahu akbar xoola waxul ana waxul nga bàyyi Fatima de waxul ana Hussein waxul ana Assane waxul ana Ali waxul ana Babacar waxul ana Umar ana Ousmane lan la wax ummati sama xeet allahu akbar ummati xataa sax yonent bi ndeysaan xoola gaa yi fii da ngay gis koo xam dana ñun ñun ñun ëllëg ñun ñooy ñun ñooy dugg àjjana keneen du dugg àjjana nañ ko yaatal waay gaa yëpp dugg dañ ko bàyyi waaye gaa yëpp dugg yonent bi day xatalu ko ñoom ñu bëgg ko xatal ah keroog ba waa ji ne ya yonent yàlla nag ma yërëm man kenn ak yonent nag ñu yërëm man kenn ak yonent lan la ko yonent bi wax day yàqta alwaasiata xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu lan moo yaatu yërmande yàlla dafa yaatu kon mbokk yi li mooy dar sa tey ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nan yàlla nangul jéggali njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu